ko donc dañu l'environnement euh, environnement international est est dafa dangereux maanaam risque yi dafa bari donc préoccupation qui est générée au Sénégal c'est le problème de sécurité La sécurité il ñaari Il y a le vol international comme le président a dit, il y a beaucoup de menaces nouvelles mais il y a la sécurité intérieure aussi avec tout ce qui est am désordre marche yàq yek mais le président a beaucoup insisté parce que a wax nombre de gendarmerie yi nombre de policiers yi fi équipement force de l'ordre mais là il parle pas de l'environnement il parle de la sécurité intérieure Manam, nu ñuy def ba nga xam ni yàqkat yeeg samba boy yeeg tojkat yi duñ mën toj wala ñu Sénégal Bim mu ci loolu thème bi abordé la jeunesse d'abord wax ni comprendre le jeunesse.

Madame dispositif ñu pour je yi mu wax ko bam terminé par le thème du dialogue donc Macky Sall waxul lu génn actualité seulement nag tuddul xam nga Sénégal lo gis dafa am finesse Macky Sall du ñëw naan oui y a des désordres intérieurs. donc je vais mettre de l'ordre non mënu ko waxé non. mais bu né non non, bokul ci actualité ah non loolu bokk ci actualité bi. chaque jour ñu ngi koy waxtaanee. non loolu mënta bokk coow ci réew mi non loolu mënta bokk ci actualité bi. pourquoi parce que ci constitution Sénégal dafa am ay dates yu ñu teg pour mandat ak bañ a ma xam nga aussi un pays mënuñu dund trois 365 jours ci campagne électorale man sur ce plan là je suis d'accord avec Macky Sall réew soit da nga koy gouverner wala gouverner woo tu ne peux pas venir dire parce que attends ce débat sur le troisième mandat là on l'a posé que, Bobo, Macky Sall fait six mois le deuxième mandat six mois imagine toi bu tu ci débat tu tu parce que fin mu position Macky Sall tu ko rek mandat bi le d'une manière ou d'une autre. non non c'est la vérité. mais mais elle est neutre Macky Sall tu ce qui va se passer après ci bopam moy xar parce que ñi am ambition ñep dañuy génn wala bok ñu commencer manœuvrer ci biir loolu mo am c'est ça la réalité bu ne won bokk il va créer un autre cataclysme encore pourquoi parce que ku melni Idi day may di sax bon xamna naa du ko fi xaar ñi nga xamni am nañ ambition yo xamni yakamte yàkkamte bo xamni boo ñu ne xaar dañuy génn ñi nga xam ne d'accord troisième mandat génn xex bi ni cour alors qu'il reste un an. Et lorsque vous parlez, lorsque un an, vous, lorsque un an vous lorsque hmm? vous parlez de euh, la sécurité intérieure, hmm. euh, l'infigis avec la sortie du procureur Yagoul, hmm. ci li nga xam ne wax nañu ñu teg loxo ñenn ñoo xam ne jàpp na ne am na lu ñu doon waajal beneen bi également manifestation yoo xamante ne am na fi euh, ci pour rejoindre un peu Ndeye Fatou est-ce que euh, d'où cette question du troisième mandat mën sécurité intérieure boobu muy wax. lu ko gën a jafar ci buñ bu ñu ci duggee. non sax man je pense que affaire troisième moo mën a jafar réew mi tey bu Macky Sall taxawoon ni par exemple soit bokk naa wala bokkuma looloo mën a jafar yëf euh, nañ uti nañ xool toutes les deux hypothèses bu Macky Sall taxawoon tey ni bokkuma nguur gi moom tas na. c' est que nguur gi tas na déjà nii rek kenn xamul boo xam bokk na am déet ñu bari ñu ngi def ay am ay journalistes lañ quand même on parle aux hommes politiques. <coughs> gisee wax bi deuxièmement si on woon bokk na beneen affaire la ñi d'accordul dañuy wax fii ñi kii mais attends mais attends ce pays là attends je veux bien la politique c'est bien la politique hein. Sénégal c'est très bien on est un pays très politisé mais dans ce pays dañu jógee ci Covid 19 boo xam dafa croissance réew 7 pour cent a ko une croissance proche de zéro ñu jóge ci loolu. La guerre Ukraine est éclatée. Nous avons une inflation de plus de 15%. C'est-à-dire que, nous avons aussi des préoccupations microcosme Nous avons dit que nous Dakar, qui climi, qui auto et qui qui. Mais le Sénégal est lambda. Vous savez, par exemple, si vous avez 5 000 francs, vous devez me dépenser. Si vous devez marcher, vous avez 15 000 francs. Quoi que ce soit un problème, est-ce que vous avez un politique voilà régler problème pour me parce qu'il y a ça aussi et puis il faut que nous une affaire FIBE 2024, nous avons vingt zone de turbulence bu grave. à qui la faute. non attends vais expliquer Je vais expliquer on va s'entendre en 2000... en 2022... Sénégal dina un peu plus de 50 milliards de recettes pétrolières et gazières en 2023 en 2024 on sera aux alentours de plus de 200-300 milliards c'est-à-dire que fiec 2024 nous avons une air pétrolière et gazière Madame le pays va devenir officiellement un pays pétrolier et gazier Madame, at dafay meññ pétrole ak gaz réew muy meññ pétrole ak gaz nag xam nañ ko mu réew moomu mooy man réew tey am na ñu taxaw yor seeni ngànnaay waaye yor seen xaalis pour financer ay ngànnaay lenn rek la xaar problème am ci réew mi ñu buruxlu ci siif pétrole bi ak gaz bi loolu il ñu xam ko dafa am ben économiste bu tudd bu bu inventé benn tudde ko la malédiction du pétrole loolu mooy lan bo xoolee réew mu am pétrole wala gaz day am guerre pétrole moo tax ñu Khadafi, Xadafi pétrole moo tax ñu rey Saddam Hussein pétrole moo tax Congo gay yi ngay dégg yépp Afrique centrale am jam, pourquoi parce que pétrole day lo xam ne ñépp dañ ko bëgg di ko wër muy doxal aduna bi te fu mu nekk ñi ëpp doole ci aduna bi lenn la ñuy xalaat ñuy def ba faagaagal la fa nekk pour mën ko contrôler. alors attends xaaral ma expliquer c'est important dama il faut nit ñi xam ban zone la Sénégal di traverser parce que je veux bien que ñu politique. c'est pour ça d'ailleurs que je je suis très choqué par opposition bi ñu def nii bañ a répondre invitation Macky Sall waaw loolu lu ma metti la et naa expliquer pourquoi. voilà maanaam fii ba bu ñuy dugg ci eeru pétrole ak gaz dañu war a def li ñuy woowee union sacrée lan mooy union sacre loolu tubaab yi mën te ñun mënuñu ko tubaab yi d'accord ñu ci dara boo demee France dafa am extrême droite am droite am droite modérée am démocratie chrétienne am centre am gauche am extrême gauche d'accord ñu ci dara d'accord ñu ci liñ gëm d'accord ñu gisante société bi d'accord ñu ci ni ñuy doxale dara mais bis bu seen intérêt national taxawee maanaam intérêt bi ñu bokk ñoom ñëpp nga xam ne intérêt réew mi la bis bu taxawee da ngay yaakaar nit ñi mos ñëw wuute ci dara. mais loolu ngay wax. non non non c'est important non attends euh, Fatou may ma développer loolu tuuti. pour Sénégal parce que il faut ñu am une il faut que ñu am.

ah c'est la propagande de Pastef. et l'enquête de c'est faux. et l'enquête de voilà je vais t'expliquer c'est-à-dire il faut que nous xam une affaire <laughs> li ñu wax ni pétrole bi dañu ko le Sénégal à 10 c'est faux. c'est hmm. pas vrai. ah enquête bi ci suñu. non c'est pas vrai enquête c'est ci condition d'attribution de ñu joxe Franck Timis c'est hmm. loolu permis de de prospection et de recherche là c'est-à-dire permis moyen fii pétrole jàpp nañ ni pétrole mi ngi fi yow nga ñëw wane ñaari mbir wane ne xam nga pétrole te am nga ay koppar yoo ci mën a def pour wut pétrole pour génne ko boo ko génnee nga am loo ci am Sénégal am lum ci am loolu recherche bi la au départ loolu bokkul ak exploitation bi dara maintenant condition yi condition Timis condition Timis d'accorduma ci bind chapitre bi uniquement pour dénoncer mais l'eau, beaucoup ak pétrole bi pétrole bi bal bu parce que aussi il faut honnête. pourquoi nga ne Pastef la nga parce que nous, ñoko wax Ousmane Sonko mo bind livre gars ni 10 Sénégal c'est faux c'est pas vrai par rapport aux les barèmes qui se font qui se pratiquent dans le monde ci exploitation bi le Sénégal a de très bons tarifs. alors exemple, euh, le Sénégal Petrosen il nekk actionnaire non il faut il faut aussi comprendre c'est important mais là aussi c'est la faute du gouvernement xam nga aussi un état aussi il faut aussi respecter quoi parce que débat bi au Sénégal le directeur de Petrosen a fait une conférence de presse expliquer nit ñi lan moo nekk ci contrat parce qu'il y a une confusion au xam ne am na ci xelu nit ñi te confusion boobu c'est pas fondé dañuy xaar ba Ousmane Sonko wax ñu du di mais on s'en fout de ça waruñoon def li ñu waroon def mooy lan génne contrat yi ubbi ko woo société civile bi presse non non c'est important Fatou expliquer nit mais ils ne l'ont pas fait donc il y a le flou artistique total nit ñi jàpp ni Sénégal dafa joxe pétrole non non mais attends comment tu peux dire ça c'est faux. alors pour pour ñëw ci que fi fin nga nekkoon. c'est important li c'est très mm. important d'ailleurs. Mm. mais pour pour nous ci sans li nga doon wax est-ce qu'aujourd'hui, on peut en vouloir à l'opposition parce que yaa ngi wax d'accord attitude bi ñu am. Ah. quand on parle de Yewi Askan Wi ak de Mimi Touré. Ah. ki nga xamante ne daf altine dafa taxaw. gazé la tere la nga génn sa buntu kër maanaam def la méthode yooyu arrestation bracelet électronique talaata mu bëgg a reerandoog yow añandoog yow ndekkandoog yow est-ce que c'est au nom du Sénégal est-ce ah, man droit laa jàng moom laay jàngale ok laa jàng droit donc li may def nii cours la comme li may wax rek man lépp lu may waxtaan damay waxtaan bu ñu demee ci droit bu ñu àggee ba ci droit damay jàngale xam nga ku nekk di nga jàng xam nga journaliste mën nga waxtaan ci lu ne mais ba journaliste da ngay jàngale man mu ñu àggee ci droit damay jàngale. réew dafa am population population mooy lan mooy ay nit ñu dox ba daje pour mu nekk nation il faut ñooñu bëgg a dund ensemble.